macha allah central bi tubaab fakal la suñu diggante ak ñoom rafet na trop parce que ay dëkkandoo la ñu boo xoolee man li indi sama relation ak ñoom ba 2017 yàlla dogal ma ànd si femme formatrice koo xamante moom la ñu tànn mu àndoon ak ñoom dem central bi nekk moro pour saytu ji ko boo xoolee tey comme ñi fi nekk tey di wax tey di OSG yi koroog bi ñuy dem daggaloon nañ leen bi pour ñu àndax ñun pour dem saytu centrale bi nekk foofu ba xam ni ñuy wax ah méngoo nax loolu mais biee yooyu daggaloon nañ ko ak seen hôtel ak yooyu yëpp mais mujj ñu dem dañu bàyyi ba le jour si ñu gàntal waaye mais ñu àndoon ak bi dem ak ñi xamante ne ñoo fi nekkoon maire ànd ak ñoom waa kilifa yu bëri àndoon nañ si délégation ba maire Sendou am na ñu fi dem saytu ju la nekkoon foofu bu ñu ñëwee mën a informance information ñoo xamante ne suñu dëkkandoo yi nekk bar ñi doon wax pour kenn ku si nekk xam ni ñu doon wax lan la loo taxoon ñu bokkoon si ñi demoon saytu ji mun mooy li ma doon wax loogu boo xoolee 8 mars bi koroog ne bokkoon nga si ñi mais gis nga koroog mobilisation bii fi nekk tey moo fi nekkoon nga xamante ne te loolu tamit kii ka war a te moo directeur Malick Sack bi nga xamante ne moo fi nekk lépp lu mu fi fekkoon benn daf ko yokk bi ñu ko yàlla maye macha allah muy def si ñi loo xamante ne ñu pëkkuy doomi Bargny rafetlu nga ko kii pëkku dëkk Bargny rafetlu na ko mu la imaam yi kilifa yi ñi fi nekk ñëpp rafetlu nañ ko seen taxawaay ci ñi ñu dëkkandoo ak ñoom parce que dëkkandoo kat li si gën a nii ñu bañ a jéppinte mais macha allah dëkkandoo bi rafet na tuwaa fakal la boo xoolee tey Bargny lépp tey loo xamante ne mu ngi fiy daw tey si Bargny loxoy central bi egg na fa seen dëkkandoo si ñi nekk ci Bargny beddiwul kenn nag macha allah suñu dëkkandoo ak ñun gàllankoor amu ci parce que tey bu ma am loo xamante ne tey am na loo xam ne mat na trois ans ndox bi dafa dawoon dugg ci biir mais bi mu dawee dugg ci biir man koroog man mii la ñu oo képp koo xamante ne ndox bi dafa laal koroog sa produit bi nga teg foofu day man mi maa doon xool faa mi koroog dama ko calculer ba xam nangam la ñu jël som boobu fay la ka ñu yóbbu la mairie fay la sa xaalis boobu ma te loolu gëj na am bu mu amee léegi mat na trois ans si ren waa fa dëgg yàlla te ñu leen fayee seen produit ba pare dañu leen bàyyi waatax produit boobu ñu yigéen ñu jëlaat seen produit loolu central bi mu ngi si doo ajim parce que central bi dafa nekk mais bëggula lor kenn parce que ah dafa sew te bëggu la yorol kenn aaxa surtout maa na jigéen ñoo xamante ne dañ tokku seen dikk di liggéey mu fekk leen seen place su liggéeykaay li mën a entreprise bu tegu si kaw entreprise ba may jëflante ñoom loolu laa leen wax nee naa leen fi ngeen fekk ni entreprise la mais central dafa ñëw tegu si kaw entreprise mboog ne central bi dawagul ñu ne leen ay jigéen yu brave ñoo fi nekk ñu mën a liggéey ñu am brave ñoo nekk xel kom boo duggee xel kom gis jigéen ñi baax ñi dañ leen di yërëm parce que jigéen ñi macha si liggéey foo ko takk weesu na fa jigéen ñu mën góor lañu. suñu pom bi ba nox bi dañ daa jàll di daanu si biir wala suñuy daal di raw léegi pom nañu ko ba pom bi ku ko gis macha allah école bi xale yi dañ daal li bu ñu duggee si classe gi sax duñu mën a wax parce que man première femme de charge de école bi bu mel na xale bu mosaan dugg booy waxaa moom du xam lu muy wax ndeke ab liw collecture nañ ko ba fi allah. lépp santera bi moo ko def ñu di ko ñaanal yàlla yal nañu yàlla jàppale jàppale mbooloo mi julli santera bi nag mën na ko fee jëlee parce que nun dañu lëkkaloo ñoom nun noo ngi central bi tey noo ngi si àllit tabaski ñoo ngi central bi dañuy financé xaalis korité dañuy jox ay nag duñu jox xaalis tam xarit dañuy jox nag tam xarit duñu ay xaalis kon nag ñoom wàccoo nañu noonu nu ngi ñaan yàlla na central bi gën a avancé ndax li ñu ñuy defal mu yokku loolu daal na ñu ñaan si central wàllu wérgu yaram bi wàllu wérgu yaram hmm, fi mu ne nii ñoom seetal nañu ne ay carte de santé seetal nañu ne benn carte de santé bi jox nañu ne carte carte mutuelle yi pour boo ko xamee ne am na loo sa yaram nga dem ñu seet la ñoom ñoo res yëpp ah rumeur rumeur kenn mënu koo ba sa àddina amul service ba amul rumeur soo ko sim mu ngi fi mais mosoo gisanu la mu des si bar ñi te moom ñoo jëkk a moo ñu jëkk a yeb ay eh, inconvénient parce que man ma saa toog mi nam dañuy gis sa sa centre bi di di di di naaw si jaww ji di wàcc si suñu kër nu ub naa yi di ko muur ndege bañ ay eh, maladie yu ñu te nit ñi waxuñu ko pourtant kenn mosul jàmbat soo ko sim léegi central bi ñëw ñu di ko jàmbat ku si feebar feebar yenn yi daf fekk nga feebar nit dëkk nag foo ko ñàkk du ñàkk amul dëkk bu ñàkk maladie mais doom bu bokkoo central bi moo ma tax feebar te fekk na feebar bi dafa commencé depuis lors si yow central bi wàccu naanu kenn ki kii xam ne bëggul nga feebar mu seetal carnet de mutuelle pour boo demee boo yëgee dara sa yaram nga dem ñu soo la moom moo lay faj moo lay jël en charge ah qu'est-ce qu'il a encore qu'est-ce que tu qu'est-ce que nous voulons ah sax ñoo leen di fayal ñun ah école yi xale bu dëkk mi nam dem université sa paas sa pay sa central bi lay jóge ku feebar man mi sama doom dafa feebaroon entrée principal woo dafay un million cinq cent mille central bi ñoo si jàppale te en ñenn ñi ñëpp ñi si ñi mu def loolu bari na du minam rek bari ñi seen du fépp foo xamante ne nit ki dis na ko rek duñ ñoo taxaw faj ko grâce à Mor ak directeur Seck Assane Thioune mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla central bi yokku di leen ñaanal fondu guddoog mu jërëf man nag li ma si gën a ne xam naa lan la hmm. yoonu màkka yi ñu si commencé ah ñoom ñeenti nit ba yóbbu ko màkka ñetti nit bari ñetti il benn ilimaan bi nag bu yàggee euh, jigéen ñi dem ah te loolu la ñaan yàlla dama ne nun central bi daal sa kaw sa kanam lañu koy ñaanal vive le central à charbon te ñoom dañu ne sax dañu koy dindi def ko gaz. fi mu ne nii promettre nañu loolu te amaana sax duutu yàgg incha allah ñu am yaakaar trop ñu ngi am yaakaar waaye parce que promesse yang ñun mos a def rek suivre nañu ko ba mu egg amul daan la ñuy dig te defuñu ko mosul am nit dina dig ni sax di am looy diis diisal di toog ba kooku di xaadi mais lu ñu nu wax rek dañ koy teg suñu